jërë ngeen jëf courant bi kalaate ci diggante këru courant gi di Senelec ak Akilee moo xëy di fet feti ci xët mu njëkk l'Observateur journal bi mi ngi ñuy xamal ne coow ak ñol ñol ak géeta ngaas gi ci amoon ba léegi pënd bi wuréegul ne waxi déggoo ci kawi kàddu mu di négocier à l'amiable gi ñu ci bëgg loolee du ca mën a am ndax kilifa yu Senelec yi seen bëgg-bëgg gudd gàtt moo di ñu dog contrat bi résilier ko président Macky Sall noonee la ko santé moo waral bi coow li takkarnaase ñu mu ne kilifa yu Senelec yi nañu seet nu ñu fi yemale contrat bi Amadou Ly mi jiite Akilee l'Observateur nañu bi ñu jokkoo ak moom ngir xam fan la mbiri toll li mu leen tontu moo di bëgguma cee wax coowal Senelec ak Akilee ku ci waxoon ba aw turam ràññeeku ci lool di Pape Babacar ngoom moom la la ko Quotidien xëyee ci moom la nekk di portrait xamal ñu ne moom l'homme des affaires bii di Pape Babacar Ngom ginnaaw waxi Akilee ji ñoo ngi koy wax ci jeneen wax moom Pape Babacar Ngom ak doomam ju jigéen Anta Babacar ngoom ñoo ngi wax ci ñoom ci suur A pàkk bi ñu samp KFC la ñu yéene kaay bi baaxee yeneen xibaar yu ci am moo di terrain bi waral coow li ba tax Abi Ndour ak Pierre Goudiaby Atepa waa Ngomeen di xaxarante lu rëy journal bi xamal nañu ne terrain boobee ministre des ba woon di Daouda Faye Vava moo ko moomoon moo ko jëndoon boobaak léegi def na ñeen fukkeet dëkk na fa ñaar fukkeet ak juróom ginnaaw bi ci la ko luyee waa Shell ñu def fa fukkeet ak juróom waa Vivo Énergie Sénégal ñoo jël pàkk ba luyee ko waa KFC ba fii ñuy waxee fa ñu samp KFC dañu ko luyee mu di lool journal bi nee nañu Anta Babacar Ngom ci boppam dëggal na ko ci waxtaanu mu séqoon ak journaliste yu Nouvelle Horizon yi horizon mën a tekki ci tubaab la ñu bari a République li mu xam ba xam ko daal moo di dafa mel ne ku tàmbalee sànku ci assemblée nationale ndax ginnaaw bi ko waa APR dàqee ci seen parti bi waa Benno Bokk Yaakaar it génnee nañu ko ci seen groupe parlementaire Sud Quotidien dëggal xibaar bi ci xët mu njëkk nañu majorité bi seppi nañu siiseeloo ci seenuk lang ci mbiri Moustapha Cissé Lo yooyee Serigne Lahat Mbacké Ndoulo président mouvement ànd falaat Macky mi du ñu wax ci Source A ne ñi nga xam ne ñoo jël a Moustapha Cissé Lo soo fayoon naar bi xoromam kon lii lépp du ko dal ne lu nit di defaras gos rek président Macky Sall defal na ko Moustapha Cissé teraanga ju nekk séq na ko moom kon moom Cissé waroon naa góorgóorlu ba xolub Macky buy tàngit du jugee ci moom lu aju ci moomi le mbir ba tey l'observateur beneen gis-gis la ci amee jàngat na ne parti démocratique Sénégal ak APR ndii ndaax ne waa PDS bi ñu nekk ci doncasi gi bukki ba leen mattoon muy Cissé Lo ci biir APR les échos bind na ne responsable APR bii di Bara Ndiaye dal na ci kaw ñi nga xam ne dafa jàpp ne dañoo nekk ci wetu président Macky Sall ànd ak moom di liggéey te gëmuñu ko seen bopp seen teraangay bopp ak bopp sa bopp moo leen bàyyi ci wetam nee na ñoo ñee jot na ñu xool leen ràññee leen régler leen ngir ngoree di gu gu rëy gi ñu nekkee mën a dakk leneen lu ñu doon wax it mu di Aminata Touré da ko plainte moom Bara Ndiaye nee na ba fi mu nekk ni jotul ab citation ba bu jugee ci Aminata Touré ñu jugee ci les échos dem fekk Aminata Touré ci las yéenekaay moom présidente conseil économique sociale ak environnementale ci stade ci statut Faidherbe ba ca ca lay wax la mu ca wax moo di dafa gis ne dañ ko fa war a jëlee samp fa statut Ndaté yàlla yàlla rek moo xam bi nga xam ne jigéen ñi seen i jëkkër faatu ak ñi nga xam ne dañoo sëy ba tas ñoo ngi koy dund ngir mën a amaat jeneen jëkkër Soleil national moo ko bind def cib gëstu ba wax ñu ne jigéen ñooñu li leen gën a sonal mooy fu ñu bëgg a sëyi baa boog fu ñu sëyi dañ leen di baatal ak fu ñu dëkkul l'observateur mel ne ko naan ko dëkk bi lu nekk am na fi bil yéenekaay bi moom boo xam ne nañ ko jëmee ci jigéen ñi nga xamante ne ji dañuy am góor bëgganteeg moom yàlla def ñu bàyyi ko fi dem sëy ak keneen te seen mbëggeel te ku njëkk ka du jeex ñooñee la ñuy dund nañu koy dundee am na ñu bari ci ñoom ñu ko wax ci l'observateur bés ni nga tey kër gi kenn doon fi nelaw ba midi Diop Diop kaay teemaa na yow Diop kaay teemaa na yow. du ko nelaw Diop taxawal ci buntu bi. doo ko fi nelawee la waaw kër gi kenn doon fi. Ah! rey na papa ja. wala sax balaa paa yi di ñëw. Mhm. nañu rey xaar bi ba pare parce que jël. nga wax Diop xar mi ko ko feray ma toj sa waay eh Diop yow wii ma jaamite yooyu yëpp day dudd da ngay duddoy wax di den nay yet ngi yaay den nay jaamite bàyyi nay def waay yaa may doote yi den nay ni yaay den nay tay oh, den nay den nay dama koo dagg de lu tax lu lekk ma ne dana lekk dugg laa wax dafa gën ñi lekk dugg moo leen gën fuuf boo ko joxee ndugg bi ma rey la lu leer naa la wax reyal dégg nga li ma la wax rek na daal xar mi du lekk ndugg dinaa xanaa tey nga bëgg a topp doo xar mi Modou Lo quatorzième victoire Modou la am colla am colla am colla jàpp am colla dana daan na ma xar mi li ko dese ci dund hmm. fii ak trois mois hmm. su bruit duggaatee ci noppam lu bari mën na dee ko oh, balaa moo dee ñu rey ko xanaa ñu rey la yow xayam mi daa mel ni sacrifice te yee na ma téemaxu ni noo ko ko boobu nga wax ni. kii. kor joor jenge. arrêté arrêté kaay kaay kaay kaay kor joor jenge moom. léegi maa ngi bawoo. waaw noppi leen noppi leen. sunu cosaan doy na doy na tan doy na. fi ma tir bu delloo sax wax ma des la nga dem. eh. jaa taa yéen ma paal bi. waaw. xar bi moom bu ñu ko sàngee duñ ko gaaw a dugal dañ koy bàyyi si mbedd bi waaw ñu xam ne am nañ xar yi kon ñëpp xam ne ñun nag am nañ xar waaw tey tabaski ren moom day day neex day day neex jàppal eh, ñu sama day dami tey dami tey nii na ma yéene bànd yow dogal nga tam ba ma ne ma def ma def la fi kaj fooli doy doy doy doy wax bi na de doy ndax xay mi waaw yow tey yaay sëyam sa yaay. kat bay ma la waaye faa bi kat bay ma. ko def maa toy fayu bu tooba yaay. waaw tey. ba tey ngay dugg mag dugg si na. monsieur ak madame sëyam. et puis nga taxaw ci mbir ki lu nga xool rek nga wax ah Fallou Diop ñoo Fallou Diop Fallou Diop mu yor kar bi mu yar kar bi mu yor kar bi mu yar kar bi mu yor kar bi xam naa. bay day xam papa yi xam nga ren ko dem bay mu xam baax rek. waaw waaw waaw bàyyi na bàyyi Diop da nga rew yaa ngi xaru de. ma ne eh, ma ne ma eh, eh, ne du fi yett. xar bi du fi yett. xar bi du fi yett. Ah. xar bi du lekk sa ñaawaay bi nga mel ni xar mi yow. eh. dama lay rey de. ma ne xar bi day lekk. xar mi rek lekk si biir kër gi. boo leen a la lekk ngeen wuti ko. xar mi day lekk. tabaski ren bi maanaam dem see. dama laa wan ñàkk fulla wala ñàkk fayda wala ñàkk jox cër ba yow respecté wu ma surtout yéen aawa yéen jigéen ñi nga xam ne yéen. yéen pour yoon yéen seen jëkkër seen borom kër sax pour yéen ay nelawam yéen a ko moom. jënd ci ñaari xar ñu teg comme ni nga ko daan defee chaque année tabaskee benn bi benn bi ñu jaay ko def ci suñuy saf-safal. yaa tegg lii. waaw. bu ma jëkkati nga ni mbote. waaw loolu mooy. neel kuy. ah nekk di sonal sama bopp sax kii ba yeboo nga ray ko saraxa ko wala nga may ko xool noo def moom. laa xam guddi jot ma tëdd nelaw jàpp sama ñaam bëgg nga ay kebatu nag bal ay wax. dama bëggoon a kii. yow yow yow looy kii tëbel. yow papa dugal dugal dugal dugal papa yow nelawaan bu bon nga am ni nga nelawee baaxul dara ah. <laughs> tabaski ci fajar laa ko jël incha allah <coughs> naa la ko indil ba ca kër ga waaw baax na naa la ko indil ba ca kër ga jërëjëf ni ma mbokk ya ah da ngaa amum xar pour bëgg xar mi tëbu waaw dama bëggoon ko ah waaw loolu kay yow kay xewal sama papa tëbukat bu mag bàyyi ngi nii xanaa dégloo ko Père Ndiaye la grand tëbu tuddee xar aka ay si loolu yéen dangaa bëgg ay affaire su mee ko tarop lu ne loolu baaxul dama laa bëgg rek xam ne ne amul à distance amul danger moo tax amul danger léegi xaar ma commencé ma daal di wala sama karaw gis am naa karaw <laughs> fala xar mi lu toll ah donc xar bi maa ngi koy xontu li may jox yow maa ngi koy def mais li xar bi di def day tiire rek xar bi day tëb rek tëb mooy lan xamoo luy tëb ala gawsu gawsu gawsu kole neel kaw si mu indi jaasi kaw xar maa ma ngay dee nee yi baax nga ma indil xar mu corona kii ba mu ñëwee ci kër gi di daanu di wàccoog di di di dafa corona nga ne ma déedéet. ba indi fi 500000 teg sa may def ni di ma jéem a ruube li yëpp yaa ko def waaye nag auto solution. Euh, da nga koy yóbbu lakkul wala da nga koy ceeb. bii dafa noir et blanc. xoolal déet déet déet. c'est que léeg-léeg day ci waañ wi nga ne ko bëy ngay tabaskee. kan ci sama yumpaañ sa yumpaañ lu ma ciy wax ak moom lu ma ciy wax ak moom moom la lay wéyee di. baal di jël décision sama ginnaaw. per bëy bi laay ba a dégg ci kër gi bu wax wax ju bëy. ko bëy laa bëgg nga teg xar mii des ci kër gi moom laay tabaskee bëy yi fu mu xam nañ jëm neel waaw. neel waaw. yar réew waay ko may ndax sa bopp raja noppi bu jooy noppi mm-hmm. bu jooy kilifa nga kilifa da jooy noppi naa la la Eh, ah léegi daal yow per da ngay wër say turandoo ca àll ba. <laughs> am xar ci boppam bu tëboo boo ne ko jàkk rek war nga koo xam man bu ma ko laalul woon sax mën naa xam ne xar mi tëbu na. Eh, Tange yaa ngi imaginer ñu xëy rek bëy xar yeeg yëpp rek deewandoo loolu noo ko imaginer action bu rafet la de. per gu xar tas na këram. per gu xar tas na këram. Eh, xam naa ne da ngeen am melokaan. femme na lu ñaaw loo xamante ne. xamoo ma a yëg. mu ne fu ma jaxaani xëy be paase xëy waay. man dama indi problème. lii yëpp yaa ko teg sa bopp. ay xar ngote ay. Tabaski les dofs de la scène vous reviennent plus fous que jamais le trio magique le trio de choc qui explose les réseaux sociaux trois véritables phénomènes les meilleurs de leur génération les maestros les plus puissants de la comédie vous reviennent dans Keur Sa les dof de la scène les plus fous de l'espace théâtral sénégalais cey fu ñu jëm fu ñu jëm ak Saner ak Mbandumbe ak Saner ak Ñanku le golden boy du théâtre sénégalais kan moo gën a dof ci ñett ñi à suivre dans spécial Tabaski sur Sénégal 7